salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Ousmane Sonko def na discours am ba pare waaye man discours usmaan Sonko du ma ci wax parce que discours bi même soos rek lay wax même chose lay répété day répété rek comme ni daan def dan maa bëgg a faagaagal Sénégal génn leen Macky Sall li mu bëgg bu ngeen ko dëggoo mosuma lekk xaalisu impôt domaine liggéey naa fa nangam nangam dimbali leen ma ngeen jàppale ma bu ngeen ko seetaanee réew mi day yàqu kenn du la jàppale duulkat nga naafiq nga yow baaxoo ci réew mi yeekatu fit nga ay fen rek ngay def boo fenee juróomi saxaar daanu te fen yu rafet ngay fen waaw yow fi mu toll nii yow moom barki alxuraanul karimi pare nga yow waa Pastef ñoo la gën a leer ne pare nga waa Pastef ñoo la gën a ne joo xam dara waa Pastef ñoo gën a xam ne yow mii doo dem Pastef noppalu leen nangu ndogalu yàlla kii pare na am fen mënut yor ay réew manipulation yorul am réew kàcc yorul am réew réew kenn du ko yore ci ay tappaleeki fen ak ay jaxase ay nit ngay wax naan président dafa dafa jëloon benn leader bu bu bokk yeewi askan wi invité ko ah mu ñëw mu waxtaan ak moom wax na ma nangam yaa mën a fen président diiñam fullaam dignitéem am kalaasam personnalité Macky Sall dina jël ku dëkk Pastef wala yeewi askan wi di ko invité ma wax ngaan kër Amadou Ba di jël Amadou Ba di ko jaxase ak population bi fii say fen léegi ñëpp ko xam ak say manipulation ñëpp a xam sa ko moo tax nga ñàkk ñëpp moo tax ku Pastef gëm leen yàlla ki mënut a yor réew mi Macky day bokk troisième candidat far force day jël réew mi far force Macky day jëlaat Sénégal far force day bokk far force kenn mënu koo tee bokk tey day toj réew mi liggéey am fulla am classe lim ko sant nag ki la ne du tudd turu kenn barki alxuraanu karim am classe ba dee personalité président Macky salla kenn moo koy xool di ko bañ kan mooy xool président Macky salla di ko bañ président bu mandat yi amoon ba 46 sax ñun yéene nañ ko 100. may leen ñu jàmm fii la alaaji Abdoulaye Ndiaye Ngalu ñëw Genève mooy vidéo bi ma leen di dugal ci fee bi Genève la ñëw alaaji Abdoulaye Ndiaye Ngalu bu teewoon du Genève nga xamante si ni artiste sax dañ fii tëgg du fees mu ñëw def fi manifestation yaa ngi dégg def fi discours am meeting am feesal ko dell ba Genève di tuuru laa la wax seen xol yi di bon ñoom ñu naan ñoom dañuy def manifestation place publique xool leen ko ni mu yaraaxee comme fu ay janax di koo bu leen monté ay dugal naan yéen moom lii Genève déedéet alaaji Abdoulaye Ndiaye ngalu jël na bee mënoo leen koo raw Genève fii toj na ko gëm leen yàlla kenn seetaanatu leen kenn déglootu leen fu ngeen woote kenn du ñëw ngir yàlla Pastef fut nous la paix waaye vous nous pétez les ponts merci beaucoup ciao ciao